yi ma ci bëggoon def mooy nekk parce que tey dañ toll ci période yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañu war a boole suñu doole boole suñu xalaat pour que génn ñu génn ci lii parce que li may bañ rek mooy euh, nit ñi jël lëpp sëf ko président de la république parce que mm. aussi la chronologie des événements nu montre que président de la république lu ko soxal mooy jàmmi réew mi euh, on à la veille di contrôle des parrainages des 93 euh, candidats. ñu dem oui il y a eu 49 ñoo xamante ne nee nañ gisuñ seen bopp ci mbir mi parce que ni leen éliminer mënuñu ko nangu 93. Euh, 49 ñu am benn collectif bu tudd collectif des candidats spoliés. 49 présidentiable quand même euh, du lenn loo xamante ne dañ ko war a négliger de dessus ñu dem jàll ci leneen ñoom ñoo bind bataaxal président de la république ne ko dañ bëgg nga jël ñu waxtaan ak ñun nga déglu ñu parce que nag jàpp naa ne ñooñu c'est des sénégalais c'est des gens yoo xamante ne jàpp nañ ne am nañ crédibilité qu'il pour diriger sa pays donc duñu n'importe qui on les respecte beaucoup ñu bind président président accéder à leur demande recevoir leen waxtaan ak ñoom ne leen conseil constitutionnel day décider na ba pare te toute décision di conseil ne n'est susceptible d'aucun recours loolu mënuñu ci def lu bari mais quand même woo leen déglu leen sama cër la en tant que njiitu réew mhm. ñu ne daal ñoom dañ bëgg a bokkaat dégg naa sax kenn ci ñoom ne waaye dañ bëgg dañ bëgg ñu dugalaat ñu ci game bi. Hmm. ce sont ces mots muy Abdourahmane Diouf. am ñeneen ñu génn ne élection mënul am le vingt cinq février deux mille vingt quatre presque la totalité. ñu ne mënul am parce que nii nii nii nii nii dañu subir benn injustice boo xamante ne wax dëgg yàlla bëgg nañ sénégalais yi xam ko te bëgg nañ ñu xoolaat mbir mi. ñu ne président de la république li ñu bëgg mooy nga revoir le processus électoral. Mhm. président déglu leen ba pare jël acte teg.